Euh, maa ngi nekk ak Pape Moussa Sonko moom nga xamante ni kenn dootu ko présenté ci milieu bi borom chorégraphe yu jéggi dayoo yi noonu laa koy waxee du wax yu am maanaa ndaxte dafay exceptionnel lu waral. dëgg la waaw mais sant yàlla rek ah ndax euh, tey ki ñu dajale fii wax dëgg yàlla maax moom yàgg nañ ndax 2005 ba léegi ma nekk ci ginnaawam. di ko defaral chorégraphe yore scène bi wàllu animation donc sant yàlla tey ñu ñëw di jouer pour la première fois ici Arena donc sant kii maanaam def na lépp lu mu def da koy defar rek Arena bi bon moom sénégalais bi ku njëkk a def loolu sant yàlla la ndax lii day des ci histoire di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal jàmm ak salaam Youssou ma jigéen sénégalais la boo xam ne wax la xam ànd naak moom fu ne nag mais benn lenn rek a yitteem mooy Sénégal avancement wu Sénégal lenn mooy yitteem mooy ñëpp dégg Sénégal donc kooku ñaanal ko jàmm ak salaam. mais tey euh, Pa Moussa mënuñu toog ak yow euh, te waxaat waxtaaneewuñu ci wàllum pecc yow euh, chorégraphie ni nga koy defee ñu gis ne yow da nga ñëw indi sa touche personnelle indi yeneen façon yoo xamante ni miinuñu ko woon ci Sénégal la wax xam nga man dama doon dama doon. Euh, artiste boo xam ne jóge ci famille boo xam ne ñëpp aar la ñuy def sam bale national nekkoon directeur du ballet national ba tey man ma wuutu ko fa nekk directeur ballet national du Sénégal donc ci lii laa judd ci lii laa judd laa màggee lii laa xam nekk ci euh, Youssou Ndour sante ko yàlla bu baax ndax chance laa koy wax parce que tey bari nañu mais yàlla man la tudd ma ne ci moom ne ci wetam sant yàlla bu baax. pas de naka la lay dikkee da ngay toog di xalaat taxaw jàkkaarloog sa mooy li ma la wax rek xam nga loo xam ne yow moom nga xam moom ngay lekkee moom ngay naanee moom ngay tëddee moom ngay yeewoo donc day yomb doomu artiste la deretu aar moo nekk sama yaram. donc day yomb. ñu gis nga jël nga jéggaane sax Sénégal dem bitim réew indi ku ci xam ku ne xam na ni pecc euh, mokkal ko yombul ak dégg dégg-dégg maanaam ni ngay déggee musique bi mais nga def ko ci ñu ci mel ni euh, euh, genre sama sama sama sista bi naka lay demee jàngale. waaw léegi xam nga loolu benn lenn rek laay wax mooy maanaam. Euh, aar dafa am loo xam ne da nga koy jàng mu doon ba âge nga dem ba mën ko jàngale loolu mooy lu difficile nag doon ci professeur mooy lu difficile mais lu yëpp dañ koy jàng léegi nag histoire bi ma leen di wax nag kii def ma sànq dama ñëw ne ma mu ne ma dama am histoire bu garaaw dama lay sant di la gërëm ma ne ko ci lan mu ne ma fi nga ma indi pour ma feccal ko Youssou Ndour kooku sama réew sama àdduna ji te bokk du ma wax sax comme mi ngi nii kii mooy lii na from Finlande Lina nga ne damaa bëgg nga expliquer leen histoire. ayca Lina. salaamaaleykum waaw ah, kii sama maître la bu baax ñun dañuy yàgg dëgg la kay te loolu man billaay damay gërëm damay sant ci ci nga ma indiwoon ci aar bi nga doon may ma conseil ak gis-gis si sabar ak cosaanu ci bi Sénégal te xam naa ni loolu lii ma doon jàng loon nekk sama ñëw Sénégal. waaw pour jàng ko fii mais mais tey jii man damaa kontaan. billaay wax naa ko Pape Moussa Sank man damaa kontaan parce que Youssou Ndour moom xam naa moom tamit bokk na ci ci sama. li ma li ma li ma doon euh, voilà li ma doon ak ak li ma doon bëgg Sénégal quoi parce que moom depuis ma nekk jeune man dama doon déglu Youssou Ndour balaa ma dégg olof sax man dama doon déglu Youssou Ndour te parole yi laa doon déglu xam naa foofu laa amoon sax oreille pour dégg olof. te balaa ma xam sax am na fecci sabar. man dama doon déglu Youssou Ndour. ba àdduna bu demee noonu. ma taseel ak ñi commencé bëgg fecci sabar bi waaw. te dama gërëm maître bu nekk ki ma doon am chance tasel ci sama yoon fii nii après ma ñëw Sénégal xamante ak Pape Moussa àdduna noonu la demee te tey jii maa ngi taxaw fii nii dafa graw quoi billaay billaay dafa graw mën nañu sax sa dégg olof bi kon papa yu tamit ci billaay bu baax a baax loolu laa wax naka ngay déggee musique bi xam ne fii nii nga ko war a feccee dégg-dégg boobu noonu parce que ñun mbalax euh, dëgg la te xam na léegi man mënatuma dellu ci temps boobu boo xam ne ni man xamuma woon dara parce que léegi man damay tàmm ba ba déglu naa ba ba tàmm ko ba xam ko mais xam naa comme làkk la rek rythme sabar làkk la rek danga nga mën a dem jàng benn làkk léegi rythme boobu tamit da nga mën a dem maîtriser ko mais da nga koy jàng mot par mot comme ça kaddu par kaddu voilà après nga def. taba kàddu yi mu nekk benn genre parole. Mhm. waaw. <laughs> lii na yow ñaata maa ngi dem maa ngi <laughs> ah, yow yow yaa ma gën a dégg olof. Ah, non xalaatuma loolu. nii naa mi nii naa mi dama koy seet ñëw yéen donc moom suba ngoon ñuy wax. <laughs> waaw kon kon jërëjëf Youssou Ndour moom moom kay moom sama premier jàngalekatu olof la. xam nga rek <laughs> ngi lay xaar léegi ci kaw seen bi danga may jox seen numéro Pape Moussa